wallaahi dafay jeex ma ne lu lekk yi neex neex lu misu yi neex neex lu ginaar yi neex neex wallaahi dañuy dee dañ ko fi bàyyi dañ ko fi bàyyi dañ ko fi bàyyi ñàkk na nit ku baax tey làqu na Seyda Zeynabu dem na kuy ku baax tey jooy na salaamaaleykum wa rahmatulah boobu ñu ngi ànd ak Jamilatu Jaxate di wootekat comme Seyda Zeynab Fall nekkoon wóllëreen ñu bàyyi ko mu nuyoo ak yéen. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu bi ñuy déglu muslim yëpp euh, oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar mbokk euh, na euh, lislaam ñàkk na waaye yow tam nga nan nga dundee xibaar bi bu mu yegsee ci yow. waaw di wax alhamdulilahi rabbil alamin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, dundin bu bu bu bu metti dundin bu bette waaye dundin boo xam ne itam tey daf ñoo jàngalaat lu bari ndax ndaxte jamono bi ñu toll dafa warante ba tey ay soxna jaaratullaahi bu Bousso ñu ngi ci kaw suuf ay maam Fawade Wele comme moom ni mu ko daan waxee ci ay waxtaanam ñu ngi ci kaw suuf ndax bu ñu déggee ne maanaam ni mu toll ci dundam ci fanweeri at ak juróom-ñett kese la ko dund te tey mën nañoo wax ne lim liggéey ci liggéeyal ko umma islam bi yëpp tey yaatu na moo tax tey àdduna si yëpp a ñàkk umma islam bi yëpp ñàkk waaye rawatina man ndax ba ma nekkee tuut tànk mën naa wax ne Seyda Zeynab moo tax ma dugg di waxtaan ci diine ndax dama ko soppoon loolu bëgg ko ba nekkee tout tànk ma naan sama yaay man de kii may seetaan di ko déglu ci rajo bi su ma màggee ni moom laa bëgg a mel sama yaay ne ma boo góorgóorloo di nga ko mel te itam wax dëgg yàlla bañ ko xamee ba tey ak mbaax la ñu xam ci moom ak yëg nit ak bëgg nit bëgg diine l'islam waaye taxawal ko xeexal diine lislaam yëpp waaye itam ku daan jëfandikoo moo bi xablillahi jamian wala tafarraqu ndax wax dëgg yàlla ràññewuñ ko woon ci benn benn loo xam ne luy xàjjale diine lislaam la dëgg yàlla daal tey moom dañuy sant yàlla waaye am na naqar metti metti tii siite sant yàlla baax est-ce que yàlla li mu def mooy jëlee na ko fi mu nar a bàyyi benn place boo xam ne dafa wéj dafa vide yéen ñi fi des Euh, est-ce que loolu dafa leen di soññ wala da ngeen di wax ne moom li mu defoon rek baax na ngeen continuer ñi ngeen doon def wala da ngeen di yokkaat seen pastif déedéet man de ab soññi laa ci gis ndax daf ñuy soññ ci ñun suñu bopp suñu jikkoy bopp ba noppi ni ñu war a jëflanteeg suñu borom kër ni ñu war a jëflanteeg suñu njaboot waaye ni ñu war a jëflanteeg dem ak àddina si yëpp ndax tey ndax tey soppe yee xarit yi tey boo duggee ci euh, euh, internet bi comme jamono bi foofu la toll da ngay gis ne Seyda Zeynab daal amul noonu man gisuma noonam amul noonu te loolu liggéey la boo xam ne ñun daf ñoo war a soññaat daf ñoo war a wanaat weneen yoon woo xam ne ci lañu war a jaar ngir mën baax ñun ci suñuy jëm yu bopp ba noppi doog a mën a baaxal nit mission la boo xam ne daal yaakaar ne tey euh, mën nañu wax ne liggéey na fi lu rëy loo xam ne kenn dootu ko fàtte waxumal dara waaye daara alquran bi mu taxawal waxumal dara waaye lim fi bàyyi ay seede yoo xam ne nit ñi mën nañ koo déglu ci wax joo xam ne daanaka mën nañu wax ne jamono bi muy wax sax euh, maanaam dikkagul dikkagul ci sunu kanam la nekk loolu wax dëgg yàlla soññe la ci ñun laa jàpp soññe la ci ñun waaw. ñu lay jégal bu baax ndax wax ji diisoon na waaye lu mënta woon ñàkk la ndax kóllëre la te kóllëre dañ koy sàmm. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu barakaatu. ñu ngi ànd ak eh, soxna Fama Diankha eh, waxtaan wi tiis na parce que barki démb ba léegi kenn xàmmewul kenn ndaxte kenn ku ne eh, say moroom ñu ngi la koy jàll maanaam liñ ma woo ci ay nit léeg-léeg ma am bokk bu gaañu sax du ma jot njaal yu mel noonu waaye su ma gëstoo xool ko du mën a jàkkaarloo ak moom soxna faama salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullah Oustaz yow lan moo la booleeg Seyda Zeynab Fall. Zeynab yàlla dafa dogal ma koy seetaan ci télé bi koy seetaan moment boobu mu ngi nekkoon ci mosaïque bi mosaïque bi moment boobu ba fay nekk moog Aïda Patra ñoom ñoo fa bu nekkoon. Aïda Patra daan def kii animation mais bu ma daan jàpp tele bi nekkul woon moom moo taxoon ma ko daan jàpp ndax dëgg rek la yàlla bëgg moment boobu Aïda Patra moom mu yëkkati woon dañ ko daan seetaan ñu koy wax naa ko ay dama xool yére bi ma xool dàll bi ma xool sañse bi mais à chaque fois des fois dama koy jàpp ma yem ci soxna si ma ne kii ku ma neex la dinaa ko lijjanti ba xam fu mu dëkk yàlla dogal may wër ay renseignement ba am numéro bi ma amee numéro ma woo ko ko dama la sopp mu ne ma maa la gën a sopp ma ne ko man maa ngi dëkkee Malika Fama Dianka laa tudd dama la bëggoon a gis nu may def ba gis la li ñuy wax rek sama diggante ak Zeynab xëy na yàlla moo ko tuddee woon noonu mu ne ma man jeudi laay faral di recevoir ndax du may nekk sama kër lu bari mais comme yow dëkkee nga Malika àjjuma incha allah boo ñëwee sama kër waxtu boo mënti ñëw boo ñëwee di ma fa fekk bi ma demee ma wax ko sama kóllëre ak sama cofeel mu nangul ma ko ñuy ànd di ko daanu di jugo ko daanu mbooloo mi tar lool ñuy jugo ko daanu ma ma la toppewu ma la taar toppewu ma la alal toppewu ma la askan Zeynab dafa am lu yàlla def ci yow te def ko ci man may loolu laa soxla ci yow te pour ma am ko ci yow foog may naxante yow ndaxte yàlla dafa wax ne ki gën ci nit ñi ma jàng ak ko alxuraan ba pare te di ko di ko jàngale borom xam-xam yi di ko wax ma gëm ko lool nag waaw may ànd ak moom na ko nag lépp loo ma jox rek bugguma lu dul xam-xam xam-xam rek laa bëgg nga di ma ko jox yàlla dogal ñu ñuy composé des fois bu amee soxla woo ma ne ma kaay ma yónni la ma nangul ko ko su amee dara na ma kaay ma yónni la ma nangul ko ko ma jàpp mu nekk nit boo xam ne nit bu sincère nit bu ñemee dëgg nit boo xam ne dafa am lu ma daan dégg ñu koy wax te comprendre ma ko muy ridal jamil raayatul laa tuddurat ma koy dégg ba mujj gi moom moo ma ko firil xamal ma ne àdduna mënoo def lu neex ñëpp lu yàlla amul yonente bi amu ko kenn ci ñun mënu koo am da ngay def li nga xam ne moom nga sentir di ma gëmloo ne ma faami jànq jaamuwuma nit yàlla laay jaamoo Fama Dieng xam nga nit ñi taxuñ may dund yàlla tax mooy dund sama sàq ma laa liggéeyal pour ëllëg yow man xëy su ma dekkee ma am lu ma fa fekk ndax àdduna saxul kër gu wéeru waay rek yàgg yàgg yàgg yàgg lu dund gi neex neex neex neex ku dee noppi. wallahi wal azim daf ma ko daan dëkkee di ma ko wax ma Fama Dieng ma ne ko naam mu ne ma lu dund gi neex neex neex neex ku dee noppi ndax ña demoon ba tey dellusiwuñ ñu tëdd ba tey yënguwuñ ña doon nelaw ba tey juguñu ana ko del si taxaw wax fii nekk lii moo xew fële wala lee moo xew fële kër ga nga xam ne da nga fay ñibbi te xamuloo lan moo fa xew lépp lu ne la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni woon ne moom moo ko wax bul weddi bul sikki sàkk gëmal ndax ñu mënuñoo def lu saxaaba yi deful woon ñoo daj lu saxaaba yi dajutoon ndax joxe woon nañ seen alal joxe seen doole joxe seen temps joxe li gën a cher ci ñoom muy seen bakkan ma xalaat na kon jamonoy saxaaba yi comme man bëggoon naa tey su ma ko fekkee woon ma daj li saxaaba yi daan daj fekkewu ma saxaaba yi gisuma yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mais maa ngi jàkkaarloo koo xam ne su ma ko gis sama xel day dellu ci saxaaba yi ak saxaabiyaat yi muy Seyda Zeynab Fall ma ne dinaa ko jox sama lépp ba jeex tàkk ma fasanteeg moom kóllëre na ko kóllëre googu nag maag yow rek ba ay mun na taxaa nag na wallahi la chak maag Zeynab ba biir àjjana Issa Sane Zeynab dem na de waaye jàpp naa ni demul en plus li ma gën a marqué ci moom am ngor ku am kóllëre maa ngi wax wax joo xamante bi nii wallahi wal azim fu wax ji mënti egg rek ñeme naa pour wax ko magam day faat fal mën na ma seede dama koy teel àddina ak li ci biiram ay mbokkam toog mu ne Fama Diankha lu ma teel dal na sama xel lu ma teel dal sama xel léeg sax ma sóoraale mbooloo dajale xaalis di ubbi saagam di ko ci dugal daf may xool ci ay bët conférence jeex na nga pour lan nga koy sama saak te bañ denc ma ne ko àddina neexul parce que nit a ngi gis may ànd ak yow may dugal sama saak ñu ne Fama Diankha toppewu ko dara lu lum lum kormatu lay wul wala lum nangam lay mu ne ma la ma la waxoon démb laa lay wax riddal jàmm faama bul seet nit ñax nit ñi jaamu woo yàlla nit ngay jaamu sama diggante nga yàlla rek laa koy seedal loo ma téel na ma conférence bi mu mujjee def yëkkati diplôme jox ma diplôme baa nga nee sama kër bi ma joxee diplôme bi daf ni ma awa moo la koy jox bi passé ñu dugg néegam mu ne ma faama awa maa ko jur man ne ko waaw mu ne ma soo gisee ma jox ko diplôme pour mu jox la ko ma ne ko naam mu ne ma dogit la dafa sax ci xol te bët bi may xol awa yoon bët boobu laa lay xool moo tax ma jàpp ne sama rakk nga Oustaz Sane Zeynab du ma ko woowee ma euh, xarit Zeynab du ma ko woowee euh, soppe mag laa koy woowee ndax daf ma def nii rakk ji mu bokkal ndey ak baay damay wax ni Zeynab wallahi wal azim Oustaz Sane yóbbaale na bàmmeel lu bëri yu bëree bëree bëree bëri ci biir bàmmeelam yóbbaale na secret yu bëree bëree bëree bëri ci biir bàmmeelam nekkoon na nit ko maandu ñun ñi nga xam ne ñun na ko yàlla boole woonal nattoo ko muy déewanteeg ñun rikkuwaay ngalawaay yàlla ñu yàlla may force may ñu doole bañ dencal ko secret yi nga xam ne mi ngi ko doon wecconteeg ñun ba duggee ko biir bàmmeel yàlla ñu yàlla kattanal dooleel ñu suturaal ñu ban dollu jikko yooyu ci ñoom même bu fekkee mënuñu ko yàlla ñu yàlla jàppale bay xeex ak suñu naf su bakkan ba duñu xawwi li nga xam ne mooy sutura si ñu bàyyeel ku ragal yàlla ku ñeme dëgg ku bëgg ku bëggoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léppam yàlla la danaa wax ne fii mënuma fee fu may erreur mooy alaxira wax boobu da ko wax à chaque fois aduna mënu ma fee am li ma neex bala maa mën a wér dëgg dëgg dëgg dëgg damaa dem barzaqiya foofu rek laa mën a amee wér daf ma daa wax ni ma Fama Diakha ma ne ko naa mënu damaa jaay sama àdduna jëndee sama alaxira àdduna ku may seetaan rek wala nga may déglu wala nga may gis da booy jàng Fama Diakha da ngay gis ci samay kàddu da nga ciy gis Zeyna Fall ndax jeme jege gi ma ko doon jegee tax ma triché ci moom lu bari samay mbokk xam nañ ko samay àndandoo xam nañ ko samay ami d'enfance xam nañ ko ñi ma daan àndal ba may xale damay wax ne ma Fama Diakha xaw ma ku soppi waaye war naa koo xam ndax dañuy wax nag dëgg dëgg neex yàlla sama mbokk dem na ba këram di ko seeti Oustaz Sayid bi mu ko seeti jee ko bu femme jànq ñëwee wax ko ne ko jaaroon naa fi jour boobu Zeynab yónni na ma ma ñëw waxuma ni ñëw na fa sama mbokk mi xëy ci su ëllëg sa woo ma ne ma démb dem naa kër yaa Seyda ma ne ko ah mu ma waaw bi ma gisee waa teg moom ma ne sama doom mag mi mee doon wax ne ma ñëwoon na nga fa ñëwoon na sa kër ñu ma dala ko wax ma ne ko waaw mun ma su ko ko waxutoon ma la ko wax ndax aw ma habitude nit di ma def visite may toog dinaa defoon seet si ne ma nangam la ma ndax ku ñëpp yaakaar di dénk di waxtaan ak yow doo def ku la seet si rek nga wuññi suturaam yàlla buñ ko wuññil suturaam yàlla nañ ko dencal li nga xam ne moo nekkoon ay mbóotam ba keroog ñu koy fecci fekk allahumma amiin Fama foofu nga waxee euh, sama yaram sax mi ngi daw ndaxte wor bi gën a métti mooy ki nga wóolu bàyyi ku la gën a jege ci wàllu deret ku la gën a jege ci wàllu meen waaye nga gis koo xam ne wóolu nga ko seet nga ko biir seet nga ko biti ba mu doy la nga doyloo ko est ce que kooku dafa war a xëy di doyadi li nga xam ne dénkoon na ko ko mu wëlbat ki bugg ko wuñi ndax dañuy wax ne suduurul asfiyaa yi xubuurul asraari ñu ne nit ñu baax ñi muy góor ak jigéen nee na seen bàmmeel bàmmeelu secret yi mooy seen dënn yooyu est-ce que ñun bokk nañ ci ñu baax bu fekkee dañuy génnee loo xam ne nit dénkoon nañu ko faama kon defe naa kon dénkuñu jàngale yi nga xam ne sa yi daal mi ngi ne doon jàngal te jàngaruñu leneen lu dul li ñu suñu borom subhaanahu wa taala jàngal li ñu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon faama wax dëgg yàlla mëntuñu continuer looy tëjee lii nga xam ne mooy jotaay bi. li ma koy tëjee oustaz Saïd mooy. sama jàng soriwul mais dama daan dégg toujours muy ñaanal way dawlo yi di wax naan yàlla na ñu wax ay Adama Seck ba mu yàlla it xaw mi yàlla mun bi maa xafale li rab bi way jaale ni minal mu karamin su ma ci jumee rek na ngeen ma jéggal moo ma ko jàngal te moo ma ko déggal yàlla na ko aaya ba wuyu ni mu ko daan xëyee di ko ñaanal néew yi yal na ko ko borom bi jottalee noonu bi ma ko ko laajee ni di ma ko firil nag ma ne ko Zeynab luy loolu daf ma ni yow yàlla yellante woon nga ubbil ma tuuti fenêtre ma jàkkaarloog a àddina wax ñi jooy nañu noppi ndax fi ma nekk moo ma dàqal fi ma jógee yaa ayatuwal nafsul mutuma inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati Zeynab yal na xippee ji àjjana yal na dëkk ak nabil Moustapha yal na àjjanay dëkkuwaayam yal na la yàlla leeral koosu bàmmeelam yal na mën a tontu ci laaj yi ñu koy tontu. Zeynab yàlla bu daram lëj yàlla na ko yàlla taxaw taxaw njabootam gi sama digganteeg moom kóllëre gi yàlla na ma ko yàlla sàmmal yàlla na ma ko yàlla sàmmal ba keroog may dugg bàmmeel oustaz sang yi lépp lu ma ñaanal yaa ñaanal sama digganteeg Zeynab lu dul faama jànq yàlla na la yàlla may ngor goo sàmmee mbokki Zeynab yi ba keroog ngay dugg bàmmeel leneen loo ma ñaanal bëgguma loolu rek laa soxla jazakumullahu xeeran mbokk yi sans commentaire. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, nañ leen doon dikk saa su nekk rek événement bu mun a am ñu ànd ko ki ndax gis ngeen ne kenn ci ñun kenn ci lislaam moo fi jógee muy Seyda Zeynab Fall ñi nga kenn koo xam ne ku xam Seyda ku ne xam nga Oustaz Mouhamed ci kàddu yi tey yi ak kóllëre nga xam ne ànd na kook moom. ngeen gis ko ci télé bi muy wax ne fi ñu bokk du fii waaye fu sori la kon oustaz ñu bàyyi la nga nuyoog euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñooy bàyyi xel muslih point com waa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xamante ne ñooy suivre muslih point com euh, di di leen jaale euh, jëmm ju tedd ji nga xamante ne moo fi jóge di soxna su baax su Zeynab Fall hmm. oustaz boo ñu doon laqisal benn loo xam ne nekk na loo xam ne lu la marqué la ci Seyda Zeynab Fall. waa li ma marqué ci Seyda Zeynab euh, ñaari mbir la euh, bi ci njëkk mooy ma gën a marqué et c'est la première fois moo koy wax parce que yëg boo xamante ne dafa nekk sama biir euh, dafa am benn bi suñu benn papa ci biir l'islam mu wax ñu ne. Euh, sunu benn kilifa di Amir Malik Ndiaye rahimahullahu dafa daan wax ni euh, mu wax sunu papa jooju ni sam papa Ousmane Mbaye ne ko man yoon bi yéemootuma ci koo xamante ne dañuy wax njàmbaarteem fekk mu ngi dund mais man ki ma yéemu mooy ki sax ci yoon bi ba dem kon le fait que sabaat boobu nga xamante ne moom la yàlla defal tawfiq soxna Zeynab ba mu dem nga xam ne léegi la magam bu jigéen di wax ni mujjanteelu jënteelu kàddoom moo doon laa ilaha illallah moom la wax li nga xamante ne mooy làmmiñam daa di di damm loolu moom moo li nga xamante ne moo loolu nit mënu ko am lu dul li nga xamante ne mooy asabaat yusabitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lxayaati dunya wa fi l axira wa yudillu ma wa kon euh, loolu yàlla subhaanahu wa taala defal tawfiix soxna Zeynab bokk na li nga xamante ne moo ma gën a moo ma gën a marqué euh, beneen mbir mi tamit moo di ne ni mu bëggee woon mbaax bëgg mbaaxam mooy feeñ ci waxtaan yi mu daan def bëgg mbaaxam mooy feeñ ci wàlluk li nga xamante ne mooy euh, la mu daan joxe ci ci ci xam-xam bi na mu daan yéene nit ñëpp mbaax yooyu tamit dafa ma jàngalaat que ne loo góorlu ci yoon wi rek des na daal waaw. léegi ban lan ngay lancer pour jigéen ñi nga xam ne ñoo fi des te yéen lu mel noonu nga xam ne moom la yéen woon. waa li ma leen di lancer rek mooy dina ñu xam ne euh, yoonuk daawa bi dafa nekk yoon woo xamante ne yoonuk teraanga gu yàlla di terale ku ko soob ci ay jaamam. nit nag na moytu yàlla solal ko mbubuk teraanga mu ciy wutee leneen lu dul yàlla subhaanahu wa taala xam tamit que ni euh, góor góorlu ba mun cee bokk ñeneen jigéen yi nga xamante ne tamit ñoom ñoo gisee mbaax euh, ci ginnaaw yàlla ci loxo soxna Zeynab li ma wax démb benn soxna ne ko perte weesuwul que nit ki yàlla subhaanahu wa taala wanee la mbaax ci soxna Zeynab nga bàyyi yoon boobu moo di ne nañu sax ci yoon bi qul amantu billahi thumma istaqim loolu mooy li nga xamante ne moom lay dénk nañu gëm yàlla sax ci kaw yoon bi mooy di nekk ci li neex yàlla subhaanahu wa taala Ustaz Mohamed yàlla jazakumullahu xeeran amiin waay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala euh, mbokk yi ñu ngi fii ci Caaroy Euh, di feddale sunu kuréel ak sunu soppe ak sunu sëriñ boobu di Seyda Zeynab euh, ñu ngi ni jàkkaarloo kenn ci ay doomam euh, ñu bàyyi leen mu présenté wu nuyoo ak yéen. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen nuyu di la sant di la gërëm ci interview bi maa ngi tudd Khady man may taaw Seyda Zeynab. waaw nit ñi nag ñu bëri miinuñ la parce que comme moom ñëpp xam nañ dundam lu meloon dafa nekkoon nit ko am sutura ay doomam bëri bu ñu bëri nañ mais ñu ci bëri kenn lañ xamoon parce que bi mu bi mu koy am fekk na mi ngi commencé nekk ci waar bi di liggéeyee télé ak rajo kooku mënul ñàkk nit ñi xam ko mais ñun nit ñi xamuñu woon lépp ci bëgg sutura ak euh, yenn yenn yi wax bëggul woon léppam nit ñi xam en tant que yaay nan nga jàngee yaay. waa yaay ni ma ko jàngee comme ni ko nit ñi jàngee dëgg la nekk bi ñu nekk ak moom ba ni mu génnee àdduna doyaluñ ji mais lépp li nga xam ne waroon na koo def ak ñoom def na ko ba ni mu génnee àdduna mu ci wàllu àdduna ci wàllu alaaxira ci jàng ci jàngale ci yedd lépp lu mu warloo woon ak ñun def na ko bàyyiwul dara. sujet wu amul dara amul lenn lu mu doon bàyyi xëy na bis bii da koo mos a ci àdduna ndax day dem ba day wax bañ naa ko yow yaay lépp lépp ngay wax doo bàyyi dara mu ne nañu palaasu yaay raw raw sax yaay parce que taxaw palaasu yaay taxaw palaasu moroom taxaw palaasu xarit ndax dañ daan nekk moom di kas di ree ay yéreem sol ay dàllam day dem ba doo sentir yow danga mel ni yow sa moroom da nekkal mu am benn complicité ak ay njabootam lépp lu muy def xeebul kenn day dañuy woo ba ñu ñëw lii de laa bëgg def wala même yére bu koy sol danaan ndax fii ma sol ko wala di mu nekkoon koo xam ne ñépp nit ñëpp gis nañ taxawaayam ndax ñëpp xam nañ ni yaay la ci yaay yi waaye ñun ñu mu jur ñun ñoo gën a xam yaay rek am ba tax na ñun amuñu lenn luñ comme ni ko ñëpp gisee mbir mi gis na mais duñ ko jooy parce que dañoo xam ban façon yaay rek amoon ñaanal ko la ñuy def ñaan yàlla rek yàlla ci ko te yërëm xam nga olof dafay tàmm di wax doom ja ndey ja est-ce que fas yéene ngeen laxasu laxasaayu bu ngeen mel ni moom itam ngeen jege ko ci liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam waaw waaw loolu moom dafa tege suñu kaw mag muy lu diis waaye dañ ko dañ ko daf ñoo war neewuñ dinañ mel ni moom mais dinañ tegu ci yoon bi mu ñu teg ndax te yoon bi mu ñu teg mooy yoonam bi nga xam ne moom la xam te mooy yoon bi mu ñu yare pare nañ ko incha allah. léegi boo doon lancer benn message ci soppe yi xarit yi wóllëre yi ak jullit ñi nga xam ne dañ ko bëgg te xamuñu ko bokkuñu moom ak tariixa bokkuñu sax fi ñu dëkk euh, lan nga leen di lancer ci wàllu ay orientation. waaw li may wax du du parce que moom li mu fi wax mi ngi fi. bu nit ñi wax ji bëree bëri bari loolu laay wax dama ni moom yaay kenn du ko justifier ay mbiram ndax li mu fi wax mi ngi fi ay kasatam ñu ngi fi ay vidéo ñu ngi fi yooyu bu waxoon ku ci sax di ko dégg li mu dalee wax ba tey li mu dala wax musul am benn changement loolu ku ko ci déglu di ci bàyyi xel di nga di nga am jàmm te mu nekkoon nit koo xam ne dafa am sutura bu bàyyi xel bu baax ci loolu ndax sutura la amoon ba nit buñ amee problème ba wax ko ko buy génn sax moom boo ñëwee di dugg si jàkkaarloo moom da ngay gis kanam gi da du la bëgg a wan ni kii lii la am wala lii la xew la sutura boobu noonu man daf ma mànk ci ay mbiram ma bëgg ñoom ñi ko sopp yëpp nañ bàyyi xel ci sutura nga xam ne da ko ko doon suturaal di ko suturaal boppam ñu sàmmal ko ginnaaw bi nga xam ne da doon àdduna kon daal su ma déggee sa wax kenn ku nekk li nga séqoon ak moom moom bu ko ubbiwul gémmiñam wax ko yow fexeel ba bu ubbi sa gémmiñ di ko wax ndax moom sutura moom daf ko yàgg daf ko daf ko mus a bëgg parce que dafa nekk nit koo xam ne xeebul kenn bëggul suufeel kenn ci kanamam te sutura dafa bokk ci jikko yi nga xam ne dañ koy nawee nit ñax ñaax nit sama bopp di ko ñaax mboolem nga xam ne daal jéem a xool ci li nga xam ne moo fi xew ndax nag nit moom mën ngaa luye lu ne waaye ay nit mënoo leen luye yàlla def na mu nekk nitu nit ñi ñëpp bëgg ko te nekkul loo xam ne daf ko forcer nit ñi mais lenn rek moo ko ñoroon muy yàlla ak yeneen ñu jéem a tegu ci yoonam boobu rek yàlla jàppale incha allah. wax ji tegtale na te wane ne na euh, ni mu doon jàngale ñi ci biti fàttewul woon njabootam li ci jëkk mooy boroom këram kon lu mel ni bu ko doom ji waxee dañu def li lu sant yàlla ndax moom melu woon ni sondeel waaye fexe na ba. mel ni njabootu kanaara bàyyi njabootam ñuy def lu leen neex muy dem di jubali doomu jàmbur kon xar na tànk tubéyam ci njabootam alhamdulilah ñu ngi toogaat ak keneen ci njabootu Seyda Zeynab Fall euh, bu ñu nee mbaaxaan rek xel yépp am na ci ku muy jubal te lan moo ko tax ba ñu tuddee ko mbaaxaan xam naa dinañ ci ñëw kilifa gi Pape Medoune lëy salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala ñu ngi lay bu baax di la ziar Diallo di la ñaanal yàlla defal la jàmm te defal ñu eh, di la masawu ci li bokk di la ko jaarewaat bu baax a baax a baax. yow noo ko xamee ak foo xamee Asayida Zeynab Seyda Sass loolu ba ma ko laajee damay sawar loolu li wax la ko Seyda ba may doon lu ndaw nekk xale bu ndaw bu xaw ma dara man dama yàlla dafa def dama teel a bëggoon rajo jël sa rajo yi doon nekk suñu kër émission amee ñuy def émission mooy leen di jàpp waa rajo Dunia di leen déglu xaw ma woon sax pour ñëw ma jógoon mais dem ma ne daal moo ma teel a rek ndax dañ ma cee yar na ba may doon lu ndaw ba tey waaw. di déglu seen émission nag di déglu seen émission chaque fu jokkoo commencé maa ngi koy déglu déglu Seyda Seyda na xaw ma koon mais dama ko doon déglu rek mooy moom ma ràññee ko ci émission bi mu doon def di jokkoo ma doon lu ndaw wax sama waa kër ñoom ñëpp xamoon ne Seyda Zeynab moo taxoon may déglu jokkoo ndax moom yàlla dafa def dama koo dégg rek ko te gisuma ko sax xawma ma woon xaw nu mel mais dama koo dégg rek bëgg ko bëgg ko. yàlla mooy moo defoon loolu la may dund ci loolu di dund ci loolu sam benn xarit bu ñu naan Souleymane waaw moom mosoo wax ne kii nii ngay déglu nu muy ñoom Zeynab ni Mbay Ngom Mbay Ngom Mbay Ngom da Mbay da koy déglu di ci woote xamante naa ak ñoom dinaa la mos a yóbbu ci Mbay Ngom waaw jour ba ma jour ba ma demee foofu na seeti leen Grand Yoff après ah, mu yóbbu ma ci Mbay Ngom moom Mbay Ngom ñoo bokk liggéey daanaka sorante wuñ bay daal moom jour dama ñëw rek bay nekk bay na ma ne ko kii mooy mu ne ma kii mooy Pape Medoune présenté ma mbay ko waaw si saa rek mbay doon woote na seen émission Jokko moom moo njëkk a woote ne leen Pape Medoune na ngi nii jour boobu laa njëkk woote ci rajo te mbay ko moo doon moo woote jox ma jour boobu na laa commencé dugg ci émission yi nag jël sama crédit di woote di déglu ci émi dugg seen émission. noonu laa def na après ma ne lii daal nit boo ko bëggee yoon salaasa moo ñu jàngal leen ci ci docteur Ahmed Lo laa ko mos déggee mu ne nit boo ko bëggee da dem da ko koy wax. man na comme que man kii yàlla def na la bëgg naa ko lool foog ma jéem a dem mu nekk dem seeti ko waaw wane sama cofeel ci moom. noonu laa noonu laa dem na def dem kër ga daara ji doon lu ndaw ba may dem lu ndaw. mais yàlla dafa def ma fëgg mu ñu ibbil ma mu fekk fa yaay yaay dama gis rek ma présenté ko ne ko man la Pape Médoune boobu daf ma daf ma laxasaayu waaw ne ma sama soppe sama soppe sama soppe sama soppe ma ne ko yaay man dama laa bëgg loolu lool lool mosuma woon xam noo mel boo ma présenté wu doon sa bopp ne ma yaay Zeynab duma ko xam mukk waaw ñu toog si saal ba façon teranga jour boobu lu ne indil na ko indil na ma ko lu ne façon teranga bu nekk rek jour boobu indil na ma ko saal bi na ma lekkal lekkal lu ne defal na ma ko waxtaan ak man ba sama xol sedd. léegi bëri na koy dégg walla koy seetaan bëgg ko naw ko waaye boo ko jegee rek ne accam bi nga ko jegee lan moo tax waxawul accam. non non ba ma ko jegee néew ma accam. ndax yàlla dafa def ne melokaanam comportement am ak ay waxam ak jëfam loolu lay dund bokkut ak ñi nga xam ne ñu naan sondeel yi nga xam ne seen bopp lañuy ñuy laq ah, di jàngal nit ñi naan leen yàlla nee na yonent bi nee na baax leen def leen nii te yow jëfee ci woo ci dara kooku yàlla yàlla boole ko ci loolu moom yàlla ko teel a yaral boppam moo tax dama jëflanteeg moom rek. gën gën yokk sama cofeel ci moom waaw bokkut ak ñi nga xam ne da nga leen dégg rek bëgg leen waaye boo leen gisee jëf jëflante ak ñoom ne càmm yàlla boole ko ci kooku ndax lu gën a rëy ci mooy doon lu ndaw Zeynab Zeynab yàlla def na defal na ko niveau boo xam ne kenn xamut waaw nga doon lu ndaw mu mu ñëw boole la si boppam xeebu la ci lenn façon teraanga bu ñuy defal teraanga doomu aadama Zeynab jour boobu ma ko njëkkee seeti doon lu ndaw defal na ma ko. ma xam ne nag kii dama doon dañ doon naan waaji waaju mais kii mooy waaji na waaw foofu laa sàmmanteeg moom kóllëre ban jikko mooy jikko bi nga xam ne gën a yéem ci moom. ah saas ma laaj ni jikko yi bëri na lool lool lool mooy jikko ju ma gën a yéem ci moom mooy jikkoy mbaax daal mbaax. waaw moom mbaax dafa boole ay jikko wala mënoo xam ban la si. xam nga dëggu mi ngi ci yaatu mi ngi ci mun a muñ bëri sutura yooyu yëpp mi ngi ci mbaax mbaax dafa tënk mais bul boo ma doon wax benn jikko boo xam ne moo la gën a marqué ci Seyda ban lay doon. mooy ragal yàlla rek sama jum rek tey ragal yàlla mooy mbaax mbaax bi mooy dëggu nit ko boo xasee dëggu rek jeex na kon dëggu la dëggu la daal. léegi dëggu googu nan lañ koy jëmmalee. gannaaw ñu ko soppee cofeel gu dëggu gannaawam lan moo ñuy xaar ñun soppe yi. waaw ah, li nga li ñuy wax rek mooy yaakaar naa ne liggéey bi fii la war a gën a tàmbalee ni mu génnee àdduna ndax xëy na nit ki booy dund ak moom ñi ci bëri boo koy def di ko ci jàppale di ko dimbali am na ñoo xam ne bu leen bu leen yàlla dimbaliwu rek mën nañ la li kii li muy gis nit ki la gis gisal la wala dara li muy gis nit ki mais bu xasee dëddu na wala ginnaaw. foofu la sa liggéey war a gën a feeñ ci moom ni ñu ko mën a jàppale mooy yaatu na sopp yi ni ñu ko mën a jàppante mooy jàppante gën a ku si nekk gën a jàpp moroomam gën a bëgg moroomam gën a sopp moroomam ñu xam ne liggéey bi min ñuy xaar liggéey bi ñun daaraa taxoon ñu bëgg ko. ansooru diin dimbali diine ci keppaaru Seyda kon seydaa moo dem waaye diine mu ngi fi Seyda bu waxee Seyda moo dem sax dafay diis Seyda moo làqu ndax li mu liggéey mi ngi fi meññeef yi mi ngi fi xam-xam bi mi ngi fi jeexit yi am mi ngi fi ñun nan la ñuy fexee nag ba loolu mu tabax ñun buñ ko mënta yokk sax ñu jéem koo aar. mooy li nga xam ne moom lañ doon jàngal rek waaw li nga xam ne moom moom lañ doon jàngal ñu fa yéene koo jëfee rek mooy di liñ doon def rek bañ ko bañ cee bàyyi dara gën koo yokk renforce li ñu doon def lépp loo xam ne rek ci wàll diine la. ñu gën koo yokk mooy jàppale ko ci wàllu daara ji niñ ko mën a jàppale rek jàppale bëri na ya yaatu na mais financement moo ci jiitu ay xale yi gën a ñu leen gën a jàppale rek ci wàllu financement waaw. yàlla daal projet yi ñu amoon d'ici cinquante ans ci ansaaru diin projet yooyu bu yokkuwul warta wàññeeku. waaw bu day yokk rek incha allah rek ndax benn benn kàddu gi daanaka koo dégg rek moom la lay wax mooy nañ gën a nañ liggéey baa ngi doog commencé. yàlla na loolu sant yàlla la comme que yàlla def na ko ci xelu soppe yëpp ñu ko bëgg ñëpp koo ci wax rek danaan liggéey baa ngi doo ko commencé kon nañ jéem a gën a góorgóorlu jàppante jàppale ko ci wàllu projet bi di wàllu diine suñ sañoon Seyda fu nekk ñu tabaxal ko daara fu nekk dinañ ko tabaxal daara conférence yi mu doon def dañ koy continuer di def programme yi nga xam ne mi ngi ko doon def yëpp lépp incha allah rek dañoo fas yéene continuer loolu du wëy ku neexee yàlla. kon su ma déggee sa wax mooy li Ababakrin waxoon bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génne àdduna man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maata képp ku doon jaamu yonente bi sallallahu alayhi wa bi faatu na kon bu la neexee mun nga génn ci diina ji dem dafi leneen waaye man kaana yaabudu llah fa inna allaha xayun la yamut abada képp ku doon jaamu yàlla nag na nga xam ne yonent bi ndaw yàlla la woon yàlla la doon liggéeyal te lislaam bi moo taxoon mu jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu yar nañu wan nañu yoon wi nan lañ ca war a jaaree moom dem na nag def na li ko war kon ñun li ñu des moom mooy def ci lu ñu war ban kàddu ngay tàggoo. kàddu gu may tàggoo mooy ginnaaw bañ la jaajëfalee rek yow jaalewaal la ko bu baax a baax a baax a baax ndax say jëflante ak moom ñu ngi la koy jaalewaat bu baax saas ñu ngi la koy jaalewaat bu baax di ko jaalee ay waajuram di ko jaale borom këram di ko jaale ay soppeem ay magam ak rakkam di ko jaale Sénégal di ko jaale àdduna Zeynab du Zeynabu Sénégal mais Zeynabu àdduna bi la kon ñu ngi koy jaalewaat mbokk yëpp rek di wax rek ki nga xam ne moom la bëggoon nekkoon missionnaire l'islam nekk bëggoon lool sang bi sallallahu alayhi wa sallam na ko yàlla na ko fekk yàlla na ko fekk àjjana firdawsi di wax ne moom yàgg nañoo wax ne suñu kóllëre ak ak ñun ak soppe yi na la ndax des fois dañ ko doon déglu émission nit woo ko ne ko Seyda man bëgg naa la gis gisanteegu ma ak yow amaguma sans gisanteeg yow wala nit woo ko ne ko sama waajur amoon na mbébét gisanteeg yow ba far génn àdduna ni koy wax danaan ko ndeysaan senegal xat na mun nañ bañ a gisante fii mais ñun ñëpp nañuy ñaan gisante àjjana fi daw si te incha allah rabbi gëm nañ ne dinañ gisante foofu bu neexee yàlla jërëjëf. jazakumullahu xeyran kooku mooy Pape Medoune ñu gën koo xam ci mbaaxaan yàlla yàlla sàmm ko yàlla yàlla aal ko dolli ko tawféex saxal ñu ci yoon wi ñu bañ a déngi déngi benn yoon kon ñu ngi ñaan yàlla nii nga xamante ne bii góorlu na ñu nit ñu góor góorgóorlu ba fekki ko mu ne jàngeen jëf bay ngeen seen waar ci yoon wi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ma ne lu lekk yi neex neex lu misu yi neex neex lu ginaar yi neex neex wallaahi dañuy dee dañ ko fi bàyyi dañ ko fi bàyyi dañ ko fi bàyyi dañ ko fi na nit ku baax tey làqu na Seyda Zeynabu dem na kuy ku baax tey jooy na